yow lan moo la gën a neex ci Serigne Touba. lépp lépp lépp rek barke xaadimu rasul Serigne Touba du question ngëm murit kër on l'aime tout simplement on l'aime barke xaadimu rasul nu mu demee baax na <laughs> <laughs> <laughs> foofu lañ koy foofu lañ koy tëjee euh, ñu ngi lay sant bu baax.